Давай, alhamdulilah ndeysaan bu rëy noonu bu rëy naa ñeel bool la yaa ngi bay seen bala kay daa am ndam ñeel bool la yaa ngi bay seen da nga ñàkk fay bu ma jógee victoire bala kay waa xaama ñu Jëli kontaan nga. kontaan naa bu baax. seetaan nga combat. déedéet. sax seetaanu. dara seetaanu ma ko maa ngi woon fii ci néeg bi. am na stress wala. non non pourtant. waaw kontaan rek. dem lan la la. kontaan rek di ko ñaanal yàlla rek. yàlla yàlla na ko jik amiin ndax nit ku baax la. borom xol bu rafet la. yàlla na ko jik bëgg nga ndam li lan nga. waaw kontaan rek. kontaan naa bu baax. bi nga mujjee dem lan ngeen waxante. kontaan naa bilaay kontaan naa chérie kontaan naa bu baax. buri bàcc li di jabar ci Balla gay numéro 2 Balla Gaye am na nam ndeysaan buree ngi noonu awa awa yaay ndeysaan buri bàccelee ngi noonu Balla Gaye jël li nga xamante ne mooy coureur des ampleurs lambu ngi noonu tey la woon Balla am ndam ci kaw euh, ci kaw yaay booy nuyu naa say naa la. ñu dundee victoire bi tey. victoire bi kontaan rek di dolli di sant yàlla di wax alhamdulilah rabbil alamina alhamdulilah ndax sant war na jaam dañuy sant ndax dañoo kontaan ndax lii dañu dafa rëy ci ñun ndax dañoo xeex di ñu xeex. guddi di ñu xeex bëccëg te Balla nag garmi la. ah daa am ñu ne dañu xeex ci combat bi. wallaahi. mais lu tax loolu. ah waaw dañoo rek xam buñ la bañee rek gisatuñ la ku ñu ragale seen baay dem na seen yaaya fi ne waaye mu ànd ak yàlla rek ànd ak yàlla rek bu ne nii di garmi tey dañoo taal ba pare ñu toog mun nañu yéen lu ngeen di triste yéen lan ngeen di triste lu ngeen di triste. ñu ne ko dañuy triste dañuy triste parce que ñoo xam Balla lekkul dara bàyyiñu jabaram ji di buri lekkul dara bàyyiñu kon nag gàcce ngaalaama saraxo Elimane sa victoire bi yal na la jik na doon ay victoire yi victoire yi victoire c'est parce que Serigne Babacar Sy macha allah kontaan rek kontaan rek buri la woon yàlla wala na am nañ ndam ne combat bi combat buri la moo ko moomoon moo ko moomoon. Balla Gaye buri la doon bëri. moom moom moom la doon bëral tey ndam li ndamam la loolu la yàlla dogal waaw. nañ ne victoire laay kontaan ñëpp doon jooy dañoo kontaan Omar dafa baax buri dafa baa bu leen seen xol walloor kenn du leen ree. kontaan nañ la. maa ngi si jàmm bu baax. dama la tey kontaan. yee kontaan bekk. Balla Gaye victoire dañ ko koo yàgg a yéene. parce que sëñ Touba woon tey jii bu amul woon tey jii dañuy bàyyi bëre maa la wax lii. bu ñu amoon dañuy bàyyi bëre ñëpp ba kontaan dañ ko xool yàgg yéen heure bu ñëwee di ñaana léegi dañoo tuxu mais bëgg giñ ko bëgg moo tax moo ñu de dafa déplacé jeex ñëw fii ñoo ngi dëkk léegi ba sibi ko taar mais dañoo ñëw gi sonn nga sànq bu ma waaw waaw sonn naa trop mais jar na ko ni ko jar moo ko jar gaynde gi moo ko jar bis mu rëy mbër mu réy moo koy am fan sa kilo 100 pour cent Sa Thiès dañ ko taxaw jàppale ko kenn nag sunu yaay jërëjëf yaay booy jërëjëf yaay booy jërëjëf booy ñu ngi sant nag buur yi ñu ngi sant buur yi ñu ngi sant tamit Khadija ñu ngi sant Awa macha allah ndam li ca kaw ca kanam allah rabbi combat bi nii lay parce que gaynde gi dafa dem bon ki euh, ki Europe ki entraîné ñëw bëggal ko boppam mu ne lii moom moo ko ki en nekk woon waay rek mais Balla Gaye ci propre am propre personne am moom moo bëggoon lii moo tax na yàlla nag fay ko nag lii job na ci job bu am solo moo tax bala borom bi nag fay li lii jërë ngeen nag jëf journaliste yi gis ngeen seen taxawaay gis ngeen seen taxawaay yéen ñëpp journaliste yi ñu ngi leen nag jéggalu nag bu baax journaliste yi ñu leen di jéggalu di wax jaajëf jaajëf gaay fonk xale yi ngeen jël seen alal di ci def di dox suba ba ngoon jot nga téye xale yi amee bëgguñu kenn ku du Balla Gaye 2 lu mu am nag ñun la ko jox jabaram jee toog lu am ñun la ko jox bëggul kenn ku du waa golf bëggul kenn ku du waa géejawaay ndam ji da ko yéene woon géejawaay yal na ko yàlla may jàmm yal na ko yàlla jàbbal ci barke Seydina Muhammad Balla Gaye la doon bëri waa bëri moo doon bëri ak Tapha Tine non non Balla Gaye bëri doon bëri ak Tapha noo bëri ma doon bëri Tapha Tine gaynde bu jigéen baa ngi barke Serigne Bamba Mbacké gaynde bu jigéen baa ngi moo res lépp gaynde bu jigéen baa ngi kii moo bëri Tapha Tine daan ñoo ngi xaar jabaru Tapha Tine Tapha Tine na muñ 2-0 dañ ko def aller retour na muñ duñu moroomam bañ na ko ba teglante ay yére Baye Fall na gërëmal boo ko Baye Fallam yi na na solo lool dafa tegle ba nangun dafa tegle xaw nga maa rey yow la laa de def dañoo kontaan rek dere dafa neex jooy nga jooy métti combat waaw damaa kontaan damaa kontaan xamoon naa dinañ am ndam ku liggéeyul doo fayeeku Omar dafa liggéey Balla dafa liggéey dafa fayeeku lii defalu ko moom kase de géejawaay la ko defal defal ko ay deretam defal ko ay mbokkam defal ko Papa Doubalees mi tëdd jamono ji waaye yomal xiyaam ñu ngi feetu tàlli na barki Cheikh Tidiane xëyam ñu laahi wallahi bàyyi Mouhamed yaa man waxoon léegi leer na seen buur bu ndaw bi seen petit roi boobu ñun ñooy empereur am. mooy la nañ Modou Lo la. le petit